Birama Ba maa ngi lay nuyu. ñu leen di fay. Birama Ba nga nekk euh, secretaire général bu sous-section SDT trois s bokk ci collège des délégué du personnel bu agence nationale euh, bu couverture maladie universelle ngeen def récemment benn communiqué pour dénoncer euh, mauvaise condition liggéeykat yi nga xam ni ñoo nekk ci CMU est-ce que mën nga ñëwaat ci sensu communication boobu nga xam ni def ngeen ko. waaw ñu ngi leen di gërëm. di rafetlu aussi li ngeen nu woowee pour ñu mën leen jotali information yi de façon détaillée par rapport ak situation bi nga xam ni ñu ngi koy vivre au niveau de l' agence nationale pour la couverture maladie universelle. donc di wax ni communiqué bi mën na ni outil la rek bu ñu lancé boo xam ni dafay tax ñi nekk autorité ñu xam li xew agence de la CMU. Mm-hmm. dafay tax aussi population sénégalaise bi nga xam ni ñun dañu war am euh, benn benn mission de redevabilité parce que nous sommes une structure publique la ñu dañuy publique nañ ñuy fayee mooy impôt taxe yi ñuy dajale moom si bokk nañ bokk na si li ñuy fayee donc loolu moo tax ñun bu ñuy communiquer c'est normal ko ñu war wax ak sénégalais yi parce que y a un devoir de redevabilité bu ñu leen war defal bu ngeen liiree communiqué am na ñeenti pàcc yu ci génn première partie bi mooy gouvernance mooy ni ñuy gérer management bi ça fait défaut au niveau de l'agence couverture maladie universelle ni ñuy mën a téye dafa dafa dafa ab rëq-rëq yu bëri te dañ ko war a xoolaat beneen poñ bi mooy li ñuy wax euh, augmentation des salaire parce que président de la république dafa joxe instruction pour ce qui concerne secteur public yi ak parapublic bokk ci ñu augmenter seen salaire mm-hmm. loolu ñëpp dégg nañ ko ñëpp gis nañu am na beaucoup de secteurs yoo xam ne ñu ngi koy def agence bi deftu ko ñu interpeller le DG parce que instruction président de la république dañ koy appliquer waaw président de la république bu joxee ni lii nañu war def loolu dañ koy def parce que moom mooy président de la république ñetteel bi dañu am accord d'établissement bu ñu signé depuis deux mille dix neuf ñu ngi ci deux mille vingt deux te léegi mu jeex ba léegi nii accord d'établissement bi ñu ngi naan ñu ngi ci direction générale ñi naan ñu ngi ci ministère de collectivité territoriale dañ ci bëgg am lu leer. direction général bi wax nañu ñun dañu bëgg ministre développement communautaire Samba Ndiobène Ka mu wax ci na wax ñi accord d'établissement bi mi ngi ci moom wala nekku ci wala kan la ko transmettre wala ban date la ko parce que accord d'établissement bi mën naa ni moo xaw tënk politique sociale bi mooy tax agent yi xam ni ñuy évoluer mooy tax xam nañu agent bu nekk ci rëq-rëq wala dell dal la wala dal ñu xam ni ñu lay accompagner loolu tant que amul duñ ko mën a appliquer te loolu dafa nekk jum euh, benn outil boo xam ni structure publique bu taxaw bu mag surtout agence de la CMU daf ko war a téye dernier point bi mooy l'indemnité de représentation médicale médecins yi dañ leen jox décret ni am nañu droit à indemnité de représentation médicale agence CMU di leen ko fay mais ñu am ci benn arrière ñoom bu ñuy laaj ñu war leen ko fay comme décret la te dañ ko war appliquer ñun ñu ngi ñaan directeur général bi mu defal leen ko ndaxte nit kat bu lay liggéeyal di nekk ci naaj bi ak ci kër gi yow bi nga xam ne yow yaay DG am yaay li yow yaay yaay yaay directeur am directeur général war nga ko fay àq ak yelefam te loolu daf ci bokk kon nañ leen ko nangul seen cër ñu fay leen ko man duma ma médecin waaye xam naa ni ñoom ils droit à ça donc na leen ko jox donc boo xoolee ñeenti pànc yooyu. nañu tënk ci communiqué bi gestion bi nag buñ koy wax large na malaise bi am ci agence bi par rapport ak système de management bi administratif financière dafa bëri problème remboursement gratuité yi dégg ngeen syndicat santé ni mu ci kaase ñun ñu bëgg ñu waxtaan ak direction général bi pour wax ni ñu koy régler parce que aujourd'hui bu effectifié waxuñu suñu satisfaction la ñun en tant que agent en tant que travailleur mais satisfaction aussi population sénégalaise bi moo tax moom moo gën a tax ñu ci taxaw troisième point bi mooy surtout la la collaboration ki lii entre l' agence et les mutuelles de santé mutuelle de santé communautaire suñu collaborateur la parce que ñoom ñooy enrôler les les les demandeurs les adhérents pour ñu mën leen couvrir en matière sanitaire parce que deux composantes yooyu ñaari pàcc yooyu moo am si CMU mooy kër de métier bi mooy remboursement gratuité yi ak hôpitaux yi centre de santé yi poste de santé yi ak aussi nu ñuy assister population à travers la couverture maladie mooy assurance maladie assurance maladie bu ko déggee ñu bëri dañ cee xam mooy assurance yi dañ cey def i yi dañ cey def ñun nag dañuy travailler assurance maladie communautaire c'est-à-dire que si bas peuple bi yëpp nañuy bëgg ñoom ñëpp ñoo am assurance maladie comme ça ku faj ku feebar doo fi xaar naan aw ma dix mille francs yu ma demee fay euh, hôpital beeg yooyu c'est-à-dire que da nga am sa carnet boo xam ne da ngay dem rek ñu faj la. mais su weesoo am na looy joxe lu ndaw lay nekk. Mm-hmm. léegi problème yooyu yëpp ñun moom la ñu tënk ci benn mémorandum waxoon ko directeur général pour ñu régler ko pendant six mois comme mënuñu ko régler ñun ñu def ko su format de communiqué pour alerter l'autorité autorité bi foog mu wax ci ñu trouver une solution autorité bi mooy kan mooy suñu premièrement suñu ministre de tutele mooy Samba Ndiobène Ka mooy ministre développement communautaire de la solidarité nationale de l'équité sociale et territoriale mooy premier ministre qui est le chef du gouvernement monsieur Amadou Ba mooy le président de la République qui l'autorité suprême ñoon na ñu bëgg wax bu fekkee trouver une solution ñoom ñu àddu ci Euh, Birame Ba bu weesoo communiqué bi am ngeen beneen euh, plan d'action euh, pour li ngeen bëgg autorité yi defar leen ko loolu lan la exactement waaw comme dañu nekk organisation sociale c'est vrai que bu ñuy def dara dañuy toog réunion ci nu biir defal ni nii ak nii nañ koy defee premier parti bi moo doon def mémorandum six mois négocié ak direction générale amuñu solution deuxième parti bi def nañu mémorandum def nañu communiqué pour discuter comme ni ma la waxoon nii ak autorité ak population bi troisième partie bi nag am na lu ñuy waaj mais bëgguñu ko wax parce que dañu bëgg donner une chance ak lii ñu mën ko gérer buñ ko gérer nag yéen ñi nga xam ne yéenay sunu sunu premier relais. Mm-hmm. la presse dinañ leen woowaat ñu leen ah ñii kat def nañu communiqué bi lii ak lii génn na ci su mu toll nii lii ak lii ak lii nañu teg ci table bi. mais lan moo lan moo tax Birama Ba euh, couverture maladie universelle euh, askan wi yëguñ ko sax lu ëpp si askan wi soo leen ko laajoon dañ naan xamuñ euh, mbir mi naka la demee exactement lan moo waral loolu. waaw c'est vrai que am na perception bu yenn sénégalais yi am dama ni yenn sénégalais yi pour ne couverture maladie universelle effectif bi muy def dafa yéex ñii ni gisuñu ko ñi ñi ngi ci bénéficié wu. peut-être que yéen en tant que journaliste xam naa ni rencontré gu leen dëgg ku bénéficier wu si couverture maladie parce que bu ngeen di bu ngeen ko rencontré di ngeen xam ni couverture bi ça existe et c'est réel maintenant communication bi wax nañ dëgg daf ci manqué boo xoolee sax temps yi am na communication bu gars yi commencé def je pense que loolu boo bu ngeen ci bu ngeen ci rapproché Ali moom muy gérer communication bi te muy journaliste comme yéen xam naa di leen di leen ci gën a yee mais liñ la mën a wax li man li ma la mën a wax. Hmm. man avant may nekk fii à dakaar j'étais à Kaolack gis naa ci terrain bi que ça soit à Guinguinéo à Kaolack wala à Nioro muy ci les trois départements de Kaolack gis nañu liggéey bi fa agence bi def maintenant nag liggéey dañuy wax dañ naan aucune œuvre n'est parfaite am na ay rëq-rëq rëq yooyu moo tax tey ñun ñu def communiquer pour ñu régler rëq-rëq yooyu. Hmm. Euh, beneen laaj tamit ñan ñooy bénéficier wu ci couverture maladie universelle boobu tamit euh, doy na waar parce que koo laaj danaa man bu ma feebaree euh, su ma làmbul sama poche faju yëguma sax luy couverture maladie universelle ñi si bénéficier wu comment ça se exactement. waaw couverture maladie universelle boo xoolee ñaari pàcc la moom laa la wax mooy cœur de métier. Mhm. agence bi dafay travailler ce qu'on appelle l'assurance maladie. assurance maladie bi mooy comme ñun rek ñuy liggéey am nañu IPM am nañu assurance boo feebaree da jël sa lettre de garantie dem si clinique bi wala si hôpital bi ñun la ñu ni la dix mille francs la mais da ngay fay deux mille francs couverture maladie nag coût bi dafa gën a wàññeeku ñoom daf da de santé yi ñoom ñooy def relais bi agence bi agence après daf leen di verser ay subvention loolu moo tax ma ne la loolu xam naa point ba boo ñëwee ci agence bi. Mm-hmm. y a des gens qui sont spécialistes dans ça ñoom dina la expliquer tous les détails yéen en tant que presse. maintenant. Mm-hmm. beneen composante bi li ma la wax nii mooy assurance maladie bi mooy euh, contrôle médical bi contrôle médical bi moom mooy travailler avec la gratuité gratuité yi hôpitaux yi ñoo koy def mooy zéro cinq ans les enfants qui ont entre zéro et cinq ans. mooy la césarienne mooy la dialyse mooy le plan Sésame boo xoolee gratuité yi même syndicat santé yi wax wax nañ ci nee nañu ñoom fi mu toll nii remboursement bi dafa yéex wala am na ñoo xam ne dafa am retard yu bëri loolu moo tax agence bi jël na disposition pour mettre en place benn système d'informatisation de ce système la comme ça di gën a gaaw mais comme li ñuy wax agence bi moom la ñuy kaas c'est-à-dire que agence bi mënul jël ay dispositions yoo xam ni c'est d'ordre général boo xam ne ñun ñëpp daf ñuy daf ñuy daf ñuy daf ñuy impacté ba pare duñ ci waxtaan ñu ngi ci war a waxtaanul moo tax fi mu toll nii yéen en tant que journaliste amu leen ci information. Hmm. moo tax su population bi amulu perception ni agence bi euh, mi ngi ñi ngi travailler sur ñoom am na benn partie population boo xam ni perception boobu la ñu am te loolu pour ñu pour pour ñu liggéey ci il faut que bi DG bi xool. man ni muy gérer agence bi loolu mooy problème bi loolu ñun loolu nañ koy appelé moo tax ñun ñu def communiqué bi ni ko lii ak lii pàcc yi agence bi da koy dafa des léegi ni mu desee noonu ñun dañu fi war toog waxtaan ci ñun am nañ ci par rapport ak ñun def nañu terrain bi am nañu ay spécialistes yaa macha allah agence bi am na ay ressources humaines de qualité mën nañ leen tegal lii lépp ne la lii ak lii nañ koy defee mais moom wax nañ ko ko mémorandum mais exécuté wu ko. loolu moo tax ñu ñu def suñu communiqué. Euh, pour que léegi nga xam ne l' autorité puisse intervenir. population sénégalaise aussi savent ce qui se passe au niveau de euh, bor bi nga xam ne état daf ko ameel hôpitaux yi euh, ci wàllum couverture maladie universelle est ce que bor boobu fay nañu ko est ce que problème bi c'est réglé wala ba léegi mi ngi fi. waaw xam nga boo xoolee depuis deux mille mën naa ni deux mille dix sept deux mille dix huit syndicats yi ñu ngi naan am nañu bor am nañu bor mais bor bi. c'est-à-dire que ni muy ñëwee comme comme comme comme li ma lay wax nii xam nga fi mu toll nii fi may waxtaan ak yow am na ñuy bénéficier wu si CMU si hôpitaux yi fi mu toll nii ñooñu seen facture balaa muy ñëw balaa ñu koy traité parce que fii dañu am contrôle médical ñooy contrôler facture yi xool ba xam facture yi baax na lu ci manqué gi ci manqué ñu wax leen indiwaat ko contrôle boobu ñuy def balaa facture bi jaar ba dem ba ñu koy fay day yàgg léegi nag loolu moo tax. système dématérialisation informatisé boobu am solo parce que bu ñu ko defee dafay gën a tax remboursement yi mooy gën a gaaw maintenant nag wax nañu ni remboursement yi am na ay sooxe am na ay sooxe yu baax te ñun waxuñu ko syndicat santé yi ñoo ko njëkk wax bi ñu ko waxee ñun en tant que structure ñi nga xam ne euh, organisation syndicale ak délégué du personnel ñun ñu waxtaan ci trouver ci une solution proposer ko directeur général léegi directeur général la ñu bëgg proposition yooyu ñu toog ñu waxtaan ci pour mën ci trouver solution pour nga xam ni du ñu toogati fenn ñu naan ay am nañu retard paiement gratuité zéro cinq ans césarienne plan Sésame wala ay jalis voilà Birama Ba Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen di remercier bu baax. Mhm. te di leen euh, jaajëfal te di wax ni rek ñun lu ñu bëgg. mooy problème yi nekk ci agence bi ñu régler ko te ñu ngi interpeller waat le directeur général di interpeller le ministre de tutelle di interpeller les autorités étatiques ñun nous sommes debout pour pouvoir régler ça merci beaucoup voilà merci beaucoup Birama Ba ci sa disponibilité may fàttali yow yaay secrétaire général bu sous-section SDT 3S euh, bokk ci collège des délégués du personnel bu agence nationale de couverture pour la maladie euh, de couverture maladie universelle euh, plutôt le jaajëfal bu baax jërëjëf